monsieur le ministre du budget jàll jéeri santé dañ ko war a defar nag parce que nag la santé avant tout te amul wër-gu-yaram amuloo dara kii kat moo dox suñu digganteeg dee parce que ku feebar da ngay faju faj moom yàlla mën naa def muy dem di dem di dem ba yàlla def nga wér kon budget bi nag war nañ ko yokk bu baax a baax mais monsieur le ministre première question Pouvez-vous, que pensez-vous de la grève des internes et anciens internes qui réclament leur, euh, leur statut et le recrutement dans la fonction publique Ma deuxième question, Monsieur le ministre. Le concours de l'État, qui donne chaque année 45 spécialistes, Bac plus 12, et qui chôment après l'internat, qu'est-ce que vous en pensez Monsieur le ministre, les Badjanougor, c'était prévu l'année dernière, te elle représente la, le, la, le, ministère de, le ministère de la Santé dans les quartiers. quest que vous en pensez Monsieur le ministre, la commune de Melach demande agent de l'État car les populations se cotisent pour payer l'agent de la santé. le ministre, l'hôpital de Saint-Louis parle de rupture de médicaments car ils ont, des, ils ont une dette de 76 millions. Monsieur le ministre, À Ziguinchor, les, les habitants réclament une radio. Monsieur le ministre, yi les son moustiquaires sont abondantes, Masha'Allah. Toubarfakal, mais il faut emprunter, il faut essayer de, de faire du saupoudrage, comme avec le président Ablaye Wade. Da ngay toog ba timis gëwal bi tëgg ndëndëm ne ku raxas sa bool na nga ko denc sa biir néeg dañuy def saupoudrage hélicoptère bi wër avant au milieu et après l'hivernage parce que ba fi mu taxaw di wax nous vivons avec les moustiques monsieur le ministre nous vous félicitons pourquoi vous féliciter parce que euh, test grossesse test paludisme c'est gratuit kon ñu ngi la ciy féliciter bu baax a baax a baax di wax nag ni mënumaa bañ a gërëm nag parce que wolof Njaay nee na bis wax lu baax waxul lu baax sab noonu la maa ngi gërëm les directeur généraux de la Le Dantec fan ak euh, dalal jàmm vraiment seen disponibilité kenn mënu koo wax